nan topp ndigal yi yàlla ba tax na bokk na ci ndigal yi koor ñu koy dugg te ñu yàgg dégg yéen ñi nga xam ni yéenay borom xam mi di jàngale ni nit mënta jaamu yàlla mu fekk xamul ni nii jaamu yàlla léegi lan mooy koor ak lan la ci yàlla di xaar ci ñun faarifuni qabla an taabuduni mhm. fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni mhm. li ma leen sant xam leen ko bala ngeen ma koo defal su ngeen ko xamul xamulee du ngeen ko mën a def mhm. te su ngeen ko mënta def zéro dañ koy ñuy ustaas nañ ko jàngale hmm. xam nañu ko ñi ko ci xam nañ ko jàngale te bàyyi yi ñuy jàngale kutiba aleykum siyaam hmm. yàlla ko waral dëgg nañ woor hmm. waaye nag bu leen ko tiitaroo kama kutiba alladina min qablikum <laughs> ñeneen jiitu ñëpp daan woor yeneen yi dañ daan woor dañ daan aj màkk kon nañ ko def ni mu ko santaane loolu mooy dëgg kon weeru ko weer la woo xam ni ñépp a ko war a woor su weeri feeñee nañu woor suñuy wori bu feeñee nañu wori sama sëriñ gis na ko ma sàmba du wax koor koorug yàlla la tarixa tarix tarixa nit la li yàlla moom ak li nit moom kenn du ko jaawale léegi macha allah kenn du ko jaawale mu mel ne que avant ñu yow sax problème weer day am day ñu ànd ak màkka am ñu nekk Sénégal ànd ak màkka est ay tappale la rek ñun ñu màkk di bokk ñu jant ak weer dañuy tappale rek nañ suñ sukkandiku Sénégal ku fi dee xaaral waa màkk ñëw sangala jullee la. te heure ndogu waaye waxuma loolu sàmb eh, eh, eh. dama ne ku fi dee. xaaral waa màkk ñu jullee ndax doo nëpp <laughs> ah. waa Màkka pour lan Màkka buñ gënoon danañ génne yonent bi wax ma Màkka buñ gënoon danañ génne yonent bi suñ gënoon danañ rey Hamza kan mooy Màkka ñun Màkka ñoruñu yonent bi ñu ñor sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ñu ñor mm-hmm. moom lañu yàlla toppal wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa anu fantahu lu leen nabi digal def leen lu mu leen tere bàyyi leen yow nga nekk màkk génn yenent bi mu dem ci ay najaayam taayif ñooñu toroxal ko mu del si màkka ngeen di ko toroxal mu génnee màkka dem madina su ngeen amoon dara da ko génne yàlla ñu toog fii gis élimaani màkk di teem ay pompe infecté yenent de secte infecté yonent mais mën naa am corona takk ko ko fa ziar mu topp yonent bi bu ko corona di takk ci àdduna bi luñ koy dee àllaaxira fekk moom ilimaan ji waxul dëgg màkk séq ñoom ñoom dara ñun kaaba ga lañ seqal affaire ndigal li ñu yàlla jox ni julli leen jublu fa jeex na hmm. roy leen Moustapha point na màkka julli nañu woor faale wuñu leen yàlla la ñu faale ndax gis nañ ni ñu def ci corona bi dañoo tëj kaabak tëj kaabag yàlla gi tere ko nit ñi yenente yi daan aj xam nañ seen conséquence a ngi ñëw diini ji lu fi waay yor tegoo ko ci yoon sa wàll a ngi ñëw maa la ko wax ñun suñu yoon ci loolu lu tax ngay dogee ci màkk yow heure bii may waxe yow màkkan ci jant ba sax Nyon nou yon chekan moun, Mali, Gini, Mauritani, Gambi, sou rezon bi nan yon yon dogye. Soun dogye nyon, dog bun dogon nyon bayi. Nyon yon moun boku wèr. Mèm Senegalji nye yon kane boku yon ouro dog? Senegalji? Nèk bèri tapalè? Mèni bèri tapalè rek. Kon li mè yon tigèl ninj, fò djant bi soye dog lèyèn. dog leen su dee fajar fu cinq heures jotee jóg leen xëdd pare ci ngeen moytu waaw ak jiibi yi nafiq yi ñun wooraluñ kenn yàlla la ñuy woor ndax moo ñu ko digal la ngeen waroon wax dangeen ci wax léegi yéen ñi nga xam ne nag xëy na ay dañuy liggéey yenn liggéey yu metti yi ba tax na jàpp nañ ni liggéey boobu mun na ko boole koor dañuy kaaf rek ñu ngi seen salaire li muy néew ñu ngi ciy boole seen i gel dañuy kàcc donc salaire bi li muy néew néew seen gel yëgu ko soxla bu mu amit seen gel yëgu ko bu ñu kenn rey ku yàlla ñor wooral ku yàlla ñorul bàyyi jeex na ay liggéey bu diis amul man ñaata conférence lay def dëgg la ni ma jeexee ak wax ni metti nit mm-hmm. ñaata émission laa def ak ñaata site internet ci laa nekk. ci ci laa mujj. seetal loolu boole ko yow nga naan dafa diis rek damay xar matt ak damay damay gardeek damay ceeb na ko fay la màggal bii ngay wutoon ndogu la <laughs> allah kon lu mën a xew wax fa dëgg yàlla nan woor liggéey mënta tere koor oustaz lan mooy kàddu yu mujj yi. Euh, waaw Macky mu dem ak sago rek. Hmm. Euh, euh, Macky Sall. Hmm. na tey hmm. na demee xel rek. kontaan naa nag. waaye mu dimbale waa King Fahd Palace. waaw. ñu dimbali King ay jigéen lañu. te jigéen joo xañ palaasam bu sonne njaalo ji yaa gàddu bakkaar ba santuma leen ngeen njaalo ndax góor du njaalo yaa gàddu bakkaar ba ne leen dimbali ñu liggéey quarante euh, million un milliard quatre ans at mu ni un milliard mm-hmm. nga di ko dimbalee xale yi dimbale waale ci seen yaay dëgg la jigéen kenn du ko seetaan président Macky lépp loo mën ci jigéen ñi def ko King Fahd Palace loo mën ci ñoom def ko xale yi yor Jakarta loo mën ci ñoom def ko ñu bàyyi di leen ramas di leen laaj six mille teguñu ko fenn croisement Cambérène nañ bàyyi xale yi ñu jaay di la dàq sa réew nga dem benn réew ñu di la dàq kañ ngay taxaw jaaxal ñëpp yow nga digg ndimbal ba pare di dàq ay nit digg ndimbal ñi ramasse ay nit kii faat place nekk fi jigéen ñi sonn lool kenn jàppalewu leen ñuy toltolaan ñii bàyyi nañ si euh, euh, fañ dëkkoon ñi toxu nañu ñii ñu ngi ci leneen pour lan président ki boo déggee li ma wax taxawal ci waa ki Fahd Palace loolu muy dëgg ah? man nag sama yoon ci opposition sama yoon ci gouvernement sama yoon ci Sénégal ku fi def loo warul def ma wax la ko waaw soxlawuma leen ni kenn nag mm-hmm. waaye maa ngi koy ñaan mm-hmm. kontaan naa nag mm-hmm. ndax libéré na réew mi kontaan naa trop libéré na réew mi oustaz yaa ngi conférence bërki ma rek <laughs> conférence bi mu mujjee dem muy samedi passé di le dix xam nga soxna Marème Faye Sall sama copine waaw ah, oh, moom sama xarit la mm-hmm. pur la sama xarit piir la su gàmmu jublu si mm-hmm. day yónni lu nit ñi gàmmu su weeru koor yi ñëwee muy yónni ko mm-hmm. le mu yónni ma cinq tonnes ceeb ne ma nañ ko séddale ñi néew doole di nar teg ca un million ne madame Mbengue loolu nag Iran moo ko moom ma ni ko ah baax na li ma nar waxuma ko madame Mbengue ma woon ñi séddale ceeb bi ñu commencé séddale boo seetee net bi gis ko voilà mm. ñuy séddale mu des un million bi mm. ma dem gàmmo daam saaxu mm. muy le 10 avril bi may yeggee ci tànt bi fi ma toog laa woo ku ne jox ko vingt mille quinze mille dix mille ci un million bi ma jox joxal ma ko sa papa mu wooree ko waxin la rek yow yaay nite nag <laughs> un million nu ma koy def ci koor gi dama <laughs> eh. mi jox naa ko wàllam dana mm-hmm. patt rek <laughs> mu ngi nii jox naa ko de ana Saliou ñëpp laa jox ma woo borom gàmmu gi mu ñëw ma jox ko quatre cent mille pour lan ma jox ko quatre ah du tout suite laa ne mm-hmm. da ko ñemee weddi quatre cent mille laa ko jox mm-hmm. muy wàllam sàmbu bii way ma jox ko cent mille francs génn gaa yi ma doon yónni lu ma lu ma réeree ñu kar ma fële ma jox leen ay paas man sa ndawal gam jëndal daa baaxul pour wax la rek loolu baax na hmm. su ko soxna Marème Faye defuloon dara du ko ci fekk dëgg la bàyyi ko du bàkkaar waaye def ko yiw la ku jàmbaar man gis naa fii ay jigéen ñu jàmbaar soxna sama euh, Samake xam nga ko mooy jabaru Mbay Jóob Sattaar maa toog boroom këram toog mu ne ma dama bëggoon def ci daara sëñ Babacar tàggu la ba xam weer wu dee ma def ci deux cent cinquante mille ma ne ko dara nekku ci weer wu dee mu yebal tabara mu def ko hmm. mais loolu ngëneel la koor loolu lañ ci soxla xalifa sàll daara yi sëñ Babacar daara daara turandoom la weer wu dee wala avant weer mu yónnee cinq cent mille wala un million ne nañ ko defal ci daara turandoom gis nga àdduna ku ci ne def lu baax man man mii koy nettali nag maa ngi def di aaye damay bañ gaa yi jël ko ci site seen site yi buñ pare ne waa Iran moom lu mu def man moom li ma def mu ngi ne fang fang waaw mais man socialiste sama adduna soo ma joxee rek mm. ma séddale mm. nu ma koy doyee un million ba mënoon naa ko téye xam nga yëgoo ko te si internet yi kenn yëgoo ko mm. mais yàlla yëg na ko yàlla yég na ko hmm. kon koor lu baax rek hmm. dimbale koo tane rek hmm. ci koor gi Macky itam mu dimbale réew mi rek jëf Macky la mu waxoon def na ko dix na bàyyi na lépp dëkk bi xumb na xale yaa ngi góor góorlu déggatul dara lu ko déranger ci lu ëpp mais def noonu rek man daal loolu laa koy dénk ñu góorgóorlu di wax lu rafet di def lu rafet man boo ma saagaay boo demee sa compte doo fa fekk dara sama compte lañ koy def faalewuma la te nag li ma neex mooy fi muy gis nii buur laa hmm. buur daal man du ma déglu waxi kenn kenn laa dul déglu te lu ma lu ma wax waaye da ko dégg ñu ñu ñëpp dégg nañ li ma leen wax hmm. réglé leen merci <laughs> allah oustaz Iran saa su ne wax fa dëgg yàlla day day day day day jël jàngale di ko di ko di ko di ko di ko dugal ci biir divertissement kon loolooy jot euh, euh, pencum daara da leen di fàttali rek ni ci koor gi bu fekkee bëggeen ay dogoog yooyu madame Fall xam naa incha allah dina cekkal iraw ke koo xam ni day defar ay petit plat la bu ngeen bëggee mën ngeen commandé ci 76 684 13 67 même ñi jigéen ñi nga xam sax bëgg nañu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 08. Serigne Jibril Ñang ku jëm ca yàlla buur yow nga def de àndandoo do dox di si doo jaay sa ngor de wóor daa